Alaaji ça va. la. xam nga fii ñu daje. yàlla calme mën nañ fi waxtaan. parce que nous sommes loin des regards. waaw te xam nga kër ga les murs des oreilles. Penda. Penda je voudrais te dire que si t'aimer est un crime. alors juge-moi au tribunal de oh. l'amour. Oh. Emprisonne-moi à vie dans la prison de ton cœur. Ah. Penda, je t'aime. I love you. Oh, moi aussi je t'aime. Je t'aime. Merci chérie. Allez, on y va. On y va, mon amour. On y va. Bébé. Mon cœur. On y va. Waaw, ki lu tudd yow? Ki lu tudd yow? naka yi ça coow li moom sa kër gi may dégg fan yi moom xanaa doy ah metti na doy na waar wax dëgg yàlla man damaa joomi sax ah doy na waar de moo ah. waral tey sax ma wax la ni la mhm. faatu mi mhm. wax naa ko ba sonn na ñëw ñu dem kër ga mais mënuma ci moom dara dara dara dara xale bi dëgër na bopp loolu du solution dëgër bopp yam loolu du solution loolu du solution ngi ciy dox te incha allah léegi mu sotti. bu neexee yàlla yàlla baax na. comme yow yaa ngi fa ma bàyyi la ak ñoom rek nga lijjanti ko sa jéeg yi sama jéeg yooyu <laughs> jërëjëf merci beaucoup jërëjëf ah waaye saa yow sa sañ sa bi rafet na. <laughs> ah fii daal du génn. waaw waaw waaw ku la ñëwal lii. kii day ma benn téer ba baax moom ma kañal kañaa wax. Moussa Seck. Moussa Seck. waaw waaw eh, eh, Moussa mën naa ñëw de. Ah, waaw ma defal Moussa. Ah, hmm. yàlla dafa dogal fan yi waaw benn xale bu gis jàpp ci côté. bu ne benn gone boo xam ne bu wala wax trop maa ngi moom sori gi jàpp na sama coppante waaye man jàpp naa coppateem. allahu akbar léegi nag sori nanu. Hmm. te xam nga am na yoo xam ne man waruma. dama di waaye problème mooy maa ngi ci ñeent. waaw um naa lamb ci. ah wax dëgg yàlla. te bëgg naa koo jël waaye léegi solution dafa dem amut. Hmm. waa léegi Alaaji bal fàttali ñu ay jullit lañu. gis naa li ba masaan am mag ñi dañaa teg banta teg bant waaw. daal ñeenti bant bu hmm. teg. waaw baa ñoom ñëpp bañ dajaloo. ñu tànn kay tànn kooku dem loolu lañaa wax teg banta kii génn waaw bàyyi mooy bàyyi mu dem ndax mën a takkale nga mën a takkale waaye loogu ba amulee waaw kaa doo ko jot aada aada mag mag ñi bëri xam-xam ah waaw waaw loolu la solution jox nga ma kon nag merci beaucoup. c'est la meilleure solution. damay teg bant. Ah, ay xolom daf de kii. yow. bilaa yaay cosaan. loo loo nag moo tax. gis nga gis nga waxtaan baax. Ah. solution foog mu am. gis nga gis nga tey bu mu waxtaan loolu amaan li du am. tànnal banta tegal ñeenti banta. boo kenn nga xam naaw yoonam nekku si. Ah. mu teg très ka mu teggi rek moo la kooku. ki génn rek daal di. rek yox. <laughs> waaye alaaji wala fukkal kii merci waaw comme dama leen ko waxee noogu la nag ay jullit lañu lislaam may nanu ñeenti jabar waaye nag ba nu demee ba ci biir u soxla keneen bëgg beneen soxna lislaam may na la u tànn banta loolu moo waral nu teg banta yii banta yi la gis nii nag tolloo ña de am na si baa xamante ne bii moom moo gën a gàtt képp kaa xamante ne nag tànn naal banta boogu ah xam na nag mbir sunu boroom la u dem mu xam ne aw a tànn bant bi dem. kan moo la man. bisimilah. maami lii nag mbirum suñu borom la foog delloo ko yàlla yàlla la mu def loogu moo gën ginnaaw awaa tànn nag am moom bant bi ala sa yëf <laughs> auzu billaahi mina sheytaani rajiim ah ah la ilaha illallah la ilaha illallah lii mënta nekk mënta nekk moom mukk mënta nekk maami maami déedéet gént bi baaxul baaxul baaxul baaxul baaxul wuu baaxul foofu baaxul maami Papi. Papi. Oui. nga mer. ana mer. lan laay dox sama kanam je comme ça parce que lan laay di fas sama kanam. waaw wuy ma tey dama ñëw annoncer la nouvelle bu neex xam naa ni boo ko déggee di kontaan. reetaanal ba pare ma wax la ko. lu may dox di reetaan comme ça mel ni ku yenn waay sa garam lan la nouvelle bu neex da ngaa wax ak nouvelle. Eh, waaw baax na en fait tey dama xëyoon demoon hôpital ci suba bi may génn jógagoo woon bëgguma la woon a dérange. papi tey dama demoon hôpital mais dañ ma annoncé ni damaa nekk en état de grossesse. état de grossesse yow ëmb. waaw non non non non non non non non non ça c'est pas possible voilà loolu mënta nekk mënta nekk. waaw loolu mënta nekk. mais dafa mënta nekk. est-ce que yow defal nañ la test. bien sûr moom lañ ma defal. defal laa lay wax si nii parce que nee na il faut ma def écho ñu xam ñaata jours ñaata semaine. ma xanaa man du ma jigéen may sëy war a jël ëmb ma jël ëmb di la ko annoncé nga war a kontaan nga ne ma daf la jaaxal yow laay waxal de. lan la ko sama ëmb di la jaaxal. non non non mais dama lay laaj dafa la neexul wala gëm naa la je te crois bien sûr gëm naa la gëm naa la. nouvelle bu neex nga ma annoncé. kontaan naa vraiment loolu moom c'est une très bonne nouvelle. ah macha allah yàlla na nga mucc ak jàmm ak salaam. amiin loolu laa dama teel a jug nag dama yàgg hôpital maa ngi dem tëdd noppalu mais dimbali ma nga génn jëm wutal tol wala mànd dafa nekk sama xel dégg ok. ay dugg naa soxla Jamilatu ëmb fii ci kër gi nekk ki nawleem ñoom lu yàlla xam doy na. mu xëy ëmb man de dugg naa problème waxuma la sax defante gi mu nar a defanteeg samay soxna waaye kii naan ma wutal ma tol ak njambaana ki ñoomin seen kii jafte gi mu nar a jafte sama kaw ay waay juróom-ñeenti weer juróom-ñeenti mois de jafte jami juróom-ñeenti weeru jafte jami mooy raw Irak ay waay lii fu ma koy waxee ay waay waaye yow loo jooy

di nga ne damaa mën a woote euh, boo gisee ma woo la man yow laa am bu mettee yow lay gis bu neexee yow lay gis aw ma ku la gën nga yàgg taxaw ci samay situation alors tey dama la woolu parce que dafa am lu xew lu bees c'est toujours la même personne Jamilatu vraiment mu ngi noonu daal ak ay fantaisies elle vient de m'annoncer que dafa nekk en état de grossesse. fa ëmb waaw. alors man nag affaire bi ça traumatise la tête waaw ma bëggoon euh, bu fekkee ni am nga mën nga ko jël ngeen ànd ak hôpital ñu defal ma contre. test de grossesse saa yoo gëmoo gëmoo la confiance n'exclut pas le contrôle. bu dul eh, non attends li ma lay wax xam naa ko bu fekkee ne mënul def test anti grossesse mu defal ma test ADN. waaw loolu ko fi jaar alaaji. non daf ma koy jaral bu fekkee ne mënul def test boobu it ñu def test ADN. <laughs> waaw man tey laa jommi nag. alaaji kii nga takk ko ci farata mu ñëw sëy si ëmb nga naan dañuy def ay test ak ay nangam. yow kon euh, li ma la wax nii euh, da nga ko gëmul wala danga ci amul benn solution ba ma ci wax. ban solution laa ci am ki ëmb ki ni la damaa ëmb da nga takk ko muy fanaan ak yow nga naan ay test jabar la de. mais tutu kii nga xam ne barki ki Ndiaye on a eu des problème ma may ko baatam mu lànk na du dem toog ci kër gi di ma indil ay problème tutu kii sama diggante maa moom fi ñu xam nga ko bu teyee mu normal bu subaa mu dof ah tutu kii sonal na ma j'en ai marre avec ah indi jaxase na sama kër bu njëkk ni ma nekkee woon xam nga ko mais aujourd'hui je ne vis plus je ne mange plus je ne dors plus mu ñëw indil ma situation état de grossesse je suis stressé jaxase na sama kër bu teyee mu def nekk nit bu subaamul dof yow amoo loo may wax lu dul di ma bàyyeeg problème yii nga xam ne moom laa nar a yenu pendant neuf fois de grossesse alaaji lan laa ci mën bu ma nee alaaji lan laa ci yaa ngi nii ah loolu mooy sa analyse mooy sa position sama position lan laa ci mën sache que Toutou vraiment mere naa te ragal naa ni yow vraiment yaakaar gi ma amoon ci yow tas nga ko. yaakaar gi ma am ak fi ma la moo tax yaakaar gi nga am ci man moo tax ma wax la lii ma la wax. ah jabar la ah loolooy sax dafiy toog 9 mois bu toogee 9 mois ba am doom. ok yàlla mu ko ci jàmm ak ok loolu daal mooy sax situation merci beaucoup. jërëjëf tu m'as déçu tu m'as déçu. mais nag yàlla na on verra. je vais régler le problème moi-même incha allah. dangay nelaw. am na woon. oui bien laa lay annoncé nouvelle bu neex nga nelaw. neex neex la bokk. neex neex xam nga nga waroon ñëw tëdd sama wet di kaf at man di foo at man. loolu nga may doyee. moo yem. dama fee ñëw pour ñu waxtaan. ci wàllu turandoo bi. turandoo doom bi mu ëmb. sànq la ñu waxtaan fii ci salle bi même pas deux heures de temps ba ñu waxtaanee nga ni ma da ëmb. même pas deux heures de temps nga ñëw di ma annoncé ay affaire doom bi kan lañ koy tuddee mais loolu lan la mën a nekk. eh, ah. eh turandoo day jël juróom-ñaari jikko te man sama doom du koo jot rek tuddee ko dafa am ñoo xamante ni mérite wuñu turandoo hmm. waaw yow kan nga bëggoon a tuddee doom ji. mais àgguñ ci loolu. ñeenti tur yi nag benn laa bëgg nga choisir ko ci xam nga benn bi mooy ñan mooy cënd mbeer. weer. xam naa ko xam naa xam weer. xam nga ñaareel bi ban la. ñaareel bi lan la. man dama ne faax du ma dem xam nga ñetteel bi mooy ban gaaw na <laughs> xam nga ñeenteel bi ban la mooy lépp dëgg la loolu mooy bis bu ma paree fii nga xam lépp dëgg la. mbedd mi mooy fii maa fi nekk. fii maa fi nekk waaw. parce que maa fi nekk. dëgg la yaa fi nekk. ñaareel bi nag mooy cëfër cëfër. cëfër cëfër. léegi yow ban nga ci jël. non non baax na kon foofu baax na léegi nag ñu wax ci wàllu ngénte li. léegi kay mën nañ bàyyi loolu après ñu waxtaan. non non non non non non dañuy waxtaan lépp benn yoon mu pare. c'est bon. yéen lañu dafa bëgg lu yomb day jël ay meex jox leen waañ bi ñuy togg di ko tubb tubbee di yóbbu seen kër ñii di lekk ñii duñu lekk bu ko defee say gan bu ñu demee naan xew bi amul lekk amul naan léegi dafa am koo xamante ni toggukat bu mag la fiy kees ñu dut taal moom boo ko joxee sa waañ dina togg togg bu set togg bu neex togg bu doy te dina ko organiser jox say gan ñu lekk ba suur amul tub tub kooku la ñuy woo après dinaa la envoyer numéro aussi tamit am na ñoo xam ne buñ demee ci xew ba lekk ba ñëw buñ ñëwee dañuy am biir bi daw li ko waral mooy li ñuy togg produit yu moo dul baax dafa am dawlin boo war a jënd dafa am ceeb boo war a jënd lépp loo xamante ni day dem ci xew bi am na produit yoo xamante ni produit yu baax la yu amul benn effet secondaire produit yooyu laa soxla pour ñu togg ko gan yi mën a lekk bu dee wàllu ndox bi dafa am ndox bu ma choisir ndox boobu dafa oyof dafa neexat naan su dee wàllu boisson bi fii boisson yu ñu fiy defar xaaj bi yépp boo ko borom estomac waru ko naan borom tension waru ko naan mooy loolu gan yi dañuy tàmm mais am na benn boisson boo xamante ni jus naturel la adduna yépp moom la ñuy naan te dañ ko bëgg léegi dinaa la wax turu boisson boobu ak turu ndox boobu moom la ñuy soxla ci xew bi d'accord ñu jëm ci wàllu solo bi am na makeup yoo xam ne rafetuñu man bëgguma bëgguma bëgguma lu kii bëgg lu simple tubaabee xam nga waaw ah, mu bëgg ñu dem ci soxna salon sopp Serigne Saliou mu may këpp ñu lu simple lu rafet dina baax ci xew bi léegi ci wàllu solo bi man yow am na ñaari yére yoo xamante ni ñoo ko waroon róole waaw ay jees neex léegi dangay après demee danga may jox xaalis bi ma dem ville ma jënd ñaari façon jeesner bu ne 15 mètres comme waaw ñu nuróole ko maag yow non eh non non non non non non say jabar bokkuñu ci nuróole bi xewlewuñu man maa xewle man maa ëmb lii nga may def nii baaxul ci ci ci bébé bi ok léegi noonu la ñuy def d'accord waaye léegi maa ngi àgg ci noppalu. comme ça nga dem jëndal ma tool bi parce que sànq bi tey maa ngi koy xaar. waaw ay waay lii jëm ay lii koy waxee man de damaa war a tukku te maa ñibbi Fuuta sama kër papa sama sama dëkku te maa ñibbi tul de gaale mbaa ma dem sama dëkku yaay ña nga idi wala ma dem mbooro mbooro gi kii de moo ko toppee la ilaha illallah annoncé la ne daa ëmb de même pas deux heures de temps mu ne doom ji koy tuddee xew mi xew na ko ba noppi xew na ko ba noppi <laughs> mu suuf saa bone laa mu taaw ay waay fu ma jëm ak kii ah! sëkkata bëkkata sa biita ban